ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar net daara du la rëcc ci réew mi. asalaamaaleykum dama taxaw léegi di dawal sama oto jóge Saly di dem Bambey euh, sama benn xarit yónnee ma benn vidéo direct benn waaye bu tudd Akhenaton Aton xaw di wax naan moment bi muy wax ni mooy moment bi may wax ak yéen nii nee na ci jamono jii maa ngi biir bureau Elimane Lam di jël xaalis. billahi lazi laa ilaha illa huwa moment bi may wax ak yéen nii maa ngi jóge Saly di dem Bambey maa ngi nii ci biir ci autoroute bi jóge sali di dem Bambey Dakar démb laa fa jóge billahi lazi laa ilaha illa huwa Eliman Lam bi ma ko gëjee gis ëpp na ay weer Eliman Lam sama ngénte la ñëw euh, mu teg ci ay fan ma dem seeti ko pour sargal ko ndax li mu ñëw sama ngénte ñu toog waxtaan jeex na xalaatuma seq ak moom alal ci kaw suuf grand la may woowee sequma ak moom mu may woo naan daf may jéem a corrompre sequma ak moom booba xeetu yabel sequñu loolu li ñu seq mooy ay jàmm muy sama rak may magam ñuy waxtaan ci réew mi billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa yàlla na ma yàlla ak àtteeg ñi nga xam ni heure bu ñu xëyee ñu ngi fen di wax loo xam ni du dëkk di yàq sama der di inventé loo xam ni teguwul fenn di ma ko wax te lenn lañ ci jublu mooy yàq ak wax lu bon te teguñu ko fenn fenn fenn fenn fu ay fenn parce que moment bii kii di wax di wax mel ni savant mel ni ko xam te li muy wax lépp ay fenn la parce que bi mu koy wax maa ngi nii maa ngi nii dépassé naa Thiès jublu jublu Bambey mu ni waxtu wi man maa ngi ci biir bureau Elimane Lam di jël xaalis non Sénégal métti na trop c'est-à-dire que fii vraiment euh, toog fi nekk ci jàmm noppi nañu xam ni lépp lu ma am man Cheikh Yérim Seck dama ko liggéey ñàkk ko di ko dundale sama njaboot man su ma doon jël xaalis dinaa taxawee ci Sénégal wala may waxee neneen nu dul ni may waxee bis bu ne dem rek maa ngi koy sam benn xarit tous les jours que je fais je parle contre mes intérêts su ma neexoon def ni ñëpp Sénégal mais defuma ko nañ ma bàyyi ngir yàlla nañ ma may jàmm ngir yàlla Euh, wax ji ëpp na euh, ëpp na te du dëgg te tegul fenn te tooñ la maa ngi ñaan yàlla ci ci barke salaatul faatihi yi xoolal ci werd laa jóge ci barke salaatul faatihi yi nga xam ne moom laay werd kii nga xam ni moo ni man maa ngi bureau Elimane Lam bu fekkee ne maa ngi bureau Elimane Lam di jël xaalis yàlla na ma yàlla alak su fekkee ne nekkuma bi bureau Elimane Lam di jël xaalis yàlla na ma yàlla àtte ak moom parce que da ngay sonn Sénégal da sonn c'est-à-dire dem ba jeex da lay ba nga dee mais ci ay simili yu néew ñu jox leen xibaar yu wér te wóor. ak Dakar net dara du la ci réew mi.